abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen jàmm seen chaîne bii di FTTV senegal kii di Maître Clédor li di avocat kii président Ousmane Sonko ginnaaw ba ñu ràjjee kii président Ousmane Sonko ci fichier électoral yi ba noppi daal di dissoudre parti bii di PASTEF saisiroon na justice communautaire bu CEDEAO ngir ñooñee nga xam ne ne am nañ doole yi. jël ay ndogal ci justice bu Sénégal ngir ñooñee daal di àddu ci ñaari coow yooyee nga xam ne dafa jaar ci diggante kii di président Ousmane Sonko ak état bu Sénégal si li ni mel nag kii di Maître Clédor Ly moo ngi xamal Sénégalais yi que ne waa CEDEAO taxaw nañ ci bu baax ndax dinañ ci amal ab procédure d'urgence mardi 31 octobre wala tombeek mardi bi ñu jëm ci processus d'urgence boobee waa CEDEAO dinañ àddu ba noppi daal di jël ay ndogal ci li ñu ràjjee kii di président Ousmane Sonko ci liste électorale yi waaye tamit dinañ waxtaan ba noppi daal di jël ndogal ci luñ dissoudre partem bii di Pastef ci réew mii di Sénégal ndax buñ demee le 31 octobre tombeek mardi bi ñu jëm waa CEDEAO ñu defoon ci coow li nga xam ne dafa jaaroon ci diggante état bu Sénégal ak Khalifa Sall la ñuy def te mooy ñu jël dëgg bi daal di koy jébbal kii di Khalifa Sall ndax loolee la ñuy amal ci coow li nga xam ne dafa jaar ci diggante kii di président Ousmane Sonko ak état bu Sénégal la ñuy def daal di jël dëgg bi daal di koy jébbal kii di président Ousmane Sonko ndax Angleterre le 31 octobre 2023 bi ñu jëm di ni mel kii di Me Clédor Ly di avocat wu kii di président Ousmane Sonko daal di xamal lu kullu sénégalais. abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen ay xibaar.